sëriñ Abdou la Al Amin daf ma waxoon ay jikko yoo xam ne nee na mooy jikkoy politicien. ñu ne ko lan la mu ne wax loo dul ak digee loo mënul mu ne ak tas yaakaar mu ne ak teral sa noon ak boot di sa sa mu ne teral sa noon boot di sa soppe ak xomp sa njaboot baat boobu na xaw ma ko mën na ko sëriñ bi lan mooy xomp sa njaboot mu ne mooy yor cinquante mille francs soxna si ne la ah yaa ngi dem ca mitin ba mu ne waaw mu ne eh, ah demaguma marché de mu maa ngi ñëw mu ne dem ca meeting ba ñu wuy la nga maye cinquante mille mu ne loolu mooy yooyu bokk na ci jikkoy politique sax ak gàntuloo man ak digee loo dul def ba tax na li ñu jot a gis ci réew mi ku ne sa xel dal na naa fekk nga naa fekk nga te réew mu neexoon na defar la war a doon waaye li koy defar jikko lay doon ci melokaan jikko ci doxalin jikko ci jëflante yow en tant que nit am nga am nga xelaat wax nga ko sénégalais yi respecté la ko ki nga àndal moom it am na xelaat nga ne ko doo ko fi waxee kooku tey bu ëllëgee bëgg-bëggam dana ko jaral sax mu rey nit ngir dund parce que am na loo xam ne rey nit ki muy dund la mooy confiance am bi mu amoon ba confiance bi tranquille muy wax nee nga ko confiance bi dama koy dajale ba mu dajaloo ma tër ko rendi doonatul doonatul yow da ngay doon man farfos soo doonatul man kat dootoo dundati da ngay da ngay continuer sa jëmmu nekk fi waaye sa xalaat dootu fi nekkati sa jëf dootu fi nekkati sa melokaan dootu fi nekkati loolu nag damaa yaakaar ne war nañoo seet mu doy la daloon dama gis euh, lu daloon liñ nettali ne moo daloon góoru saalum saalum moo dal euh, lan ci politiciens yi góoru saalum saalum gi day toog ci penc mi buñ ne Senghor mu ne xay sengoor foofu bon yàlla na xal ko gars yi Senghor dajale xaalis ñëw jox ko mu daal di jënd ceeb denc jël def ci poosam ñu toog ci penc mi di xas Senghor rek mu noppi bu ñu waxee Senghor rek mu xàddami ko <laughs> ñu ne góor gi ah sa de dafa yàq réew mi baaxul mu ne hé fañ maa lexal kat <laughs> fañ maa lexal sama gémmiñ gi fa seex kat mënatut a wax kat <laughs> mooy dañ ko jox mu lekk mooy deretu sénégalais yi lañuy lekk dañ ko nangu ña a lekk seen biir yu feef ya la ñuy vidd denc ko moo waral duñ wér mhm. wallahi al azim soo leen laajoon xeetu feebar yi ñu yor wala seen docteur yi wax leen ko da nga da nga fanaan a wax alhamdulilahi rabbil alamin mhm. ndax suñu borom subhanahu wa taala waxam du dëñ waxam mhm. du dëñ mhm. xolu ña waroon a lekk condition yu baax yi sénégalais yi waroon a nekk nga xañ leen ko ne ku dëriix lekk booloo yemoo ci lekk denc ci ruq loolu lay yàlla di jël soppi ko feebar nga di ko noyyi booy lekk mu di ca dugg booy lekk sax du saf lekk ci wéradi googu ci ngay nekk ci jafe-jafe yooyu sa confiance dootu tranquillité sa xel sax dootu fi nekkati moo waral bàggante France beeg ñëw bu leen kii paay ya nekk ca Saalum toog fa di lekk lu lew di naan lu lew déggoo leen France te ñoo leen di gën a wér ñeenti jabar la ñu yor mhm. te ñoom benn rek la ñuy yor di bàggante France ka ñëw yaa quelque chose